7 sur 5 beneen numéro dal ak jàmm. njiitu réew mi Bassirou Diomaye Diakhar Faye amaloon na ak waxtaan ak secrétaire d'État adjoint bu États-Unis ñi koy wooye Kurt Campbell seen waxtaan jëm ci nu ñuy coopération diggante ñaari dëkk yi moom mi di Kurt Campbell amal na tamit ay waxtaan digganteem ak yeneen membre gouvernement bu senegal jëwriñ ji ñu dénk wàllum transport di El Malick ñaax na mu sekkal wàll woowu ñu waxtaan ci naka lañuy ñuy gën a yembalee transport ci wàllu Ndakaaru kàddu yooyu ma nga ko yëkkati woon ci ab séminaire bi nga xam ne dafay waajal état généraux bu secteur transport mu doon ay waxtaan yu yaatu yoo xam ne ku nekk da ciy joxe xalaatam ngir transport gëna a yemb ci Ndakaaru ak ci Sénégal. Vacap Hospitality doon ab filiale bu homme d'affaires bi di Amadou Loum Diagne xaatim na ab financement digganteem ak benn institution financière américaine ngir tabax ñaari hôtel fële ci Almadi xew-xew bi ba nga amee woon ci teewaayu jëwriñ ji ñu dénk wàllum tourisme ak artisanat di Mountaga Diaw mu rafetlu ko te xamle ni li ni mel dina gën a saafara li ñu ñàkk wàllum infrastructure hôtelière fii ci Ndakaaru bés bi ñu jagleel wàllum garab dinañ ko amal fële ca Touba Mbacké ñeenti fan ci weeru août bi ñu dëgmal bés bi doon tamit ab journée sensibilisation ba nga xam ne dañu ciy wax njariñu garab ak naka lañ mën a def ba am souveraineté alimentaire ci garab laata bés boobu ñetti fan ci weeru août dinañ amal ci dëkk bu sell bi ñetteelu journée setal suñu réew fii ci Sénégal. ci seen agenda ngeen mën jàpp ni institut universitaire pêche ak aquaculture bu université Cheikh Anta Diop de Dakar dinañ féete seeni ñaar fukki at xew-xew bi dina am fële ci amphithéâtre bu UCAD 2 ay exposition ak ay diffusion film dinañu ko amal ci xew ma ci xew ma itam dinañu am ñoo xam ne dina leen ràññakle ci ay distinction li moo doonoon tënku xibaaru ayubés yi fii ci agence de presse sénégalaise ñu bàyyi leen ak vue APS yu ayubés yi te di leen ñaanal weekendu jàmm purchase your tracks today.